marhaban xiiro bi ak ngaayo bi ci biir géew politique yi di maanaam tension bi ñu ci nemmeeku moo gën a fës ci xëtu yéene kaay yi critique nañu ni ki tey lañu fas ubbi procès wu député di Mame Diarra Fam ak Déthié Fall ci tribunal bu Ndakaaru yéene kaay bii nañu abu verdict mi ànd ak risque bu ñu moytul moo fas yéene tukkee ci mbir bu nu mel di maanaam verdict à haut risque li ko waral bu ñu sukkandikoo ci suñu natango yi moo di ne bu fekkente ne way attakat yi jalgati wuñu luwa ba bi ci biir réew mi député yi lée di Déthié Fall ak Mame Diarra Fam daanu kaso bu métti nar a gàll ci seenu los ba nga koy tëdd yéeni kaay Walf Fadjri nañu ginnaaw bu ñu tegee loxo ay bi te ñu fas yéene leen muy firndeel moo di ne président Macky Sall fas yéene wu deltu ci ginnaaw yoon suñu naataango yi nañu responsable lu ñu tegoon ñu génn ci ab manifesté yeewi askan mi ñu daal di tere ci biir réew mi tey leen di atte taxawaay bu nag dafay firndeel ab bu dogu bu nguur gi dogu jëmale ko nag fexe bi faagagal lépp lu jëm ci ay manifesté ya nga xamante ne dafay jur ay jàmmaarloo ci biir réew mi jëm ci tension politique bi bi ay liberté doomi aadama yu ñu daal di tënk ak coowal troisième mandat ministre ba woon Bakar Dia mu ngi sàkku ci président Macky ngir mu dellu soit xelam bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay l'info témoin quotidien daal di koy feelu ne ñu beneen ministre ba woon bi ñu dénkoon moom itam daal dinay ci président Macky ngir mu xoolaat bu baax a baax doxalinam moom Mankeur Ndiaye bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi daal dinay indi njàppalam ni kiy démb ci njiital conseil économique mi nakarlu processus électoral gi ay manifesté yu ñuy ayal opposition bi ci biir réew mi yéen kaa Sud Quotidien nañu bii la sorti bu Aminata Tall daal di def te Mankeur Ndiaye daal di ko ci jàppale ak taxawaayu Maodo Malick Mbaye ginnaaw bu président Macky Sall maye ab audience saagakat bile di Californie fale ci Paris loole nag lu muy firndeel moo di ab tasaaro mi nar jural alliance pour la république APR ay jafe-jafe yu tara yéene kaay bés bi le jour itam daal di ci mbir bu nu mel ay baat yu wo ñu ngi tàmbale di jib ci biir camp présidentiel bi te lu nu mel rek lay nurol moo di ab ngelaw jëmale ko ci bañ di maanaam un vent de révolte ci biir mouvance présidentielle bi bu ñu demee ba soxna Aminata di jàpp ne gi ci Sénégal ci régime Macky Sall deltu ci ginnaaw Mankeur Ndiaye daal di koy tàccul yéene kaay bés bi le jour mu ngi xamle kon jot na nag ay nit yu wër président Macky Sall wax moom bu ko mooyee direction bu bateau Benno Bokk Yaakaar jël jamono ji tembe jëmut kër bu ñu sukkandikoo ci yéene kaay bi yéene kaayu enquête moom mu ngi sampub a dem ba ci élection yi li waral laaj bu ni moo di ne xeexin bi ci diggante ñaari coalition yi daa amee bu wutee jaa ngeen jëf